damay wax rek ne tarif yi nag du yokk revenu Sénélec ndaxte at bu jot commission de régulation mooy nattal Sénélec ñaata la war a am si revenu te natt boobu nag daf koy basé si contrat de performance bu mu am ak état bi basé ko aussi si objectif yi nga xam ne moom lañ ko fixé buñ ko nattalee loolu nag ba pare si la Sénélec di xayma ne lii su ma ko waree respecté comme nu ngeen ma ko laajee lii laay soxla commission de régulation valider loolu buñ ko valider légui nak bañ ne lii nga wara am ci revenu su boba nak lañuy xol ndax njëg bi dina ko mat wala njëg bi du ko mat su ko njëg bi maté do am problème mais su ko njëg bi matul nak su boba commission de régulation des laaj état ndax da ngay nangu ñu yok tarifi wala gab bi ci dess yow ya koy compenser loolu lañ defoon at yi yëpp état bi presque subventionné na 318 milliards yoo xamante ne ni moom la jëlee si nga pour jox ko pour Senelec mun a am revenu boobu noonu nga xam ne moom lañ ko laaj pour mun a def qualité de service ak continuité de service bi et loolu bu mu ñëwee nag tey jii nii état moo am ay raison am moo ne bu ñu xoolee trimestre bu mujj bi 12 milliards la gab bi nekk état ne léegi kon douze milliards yooyu mu méngoog téeméer boo jël war nañ ci yokk ñaar fukk ak juróom-benn état bi ne déet lii nag duma ko teg population bi ndaxte xëj na kon mu diis mais dama koy teg damay jël 6 pour cent yi kese moo wax leen ñu contribuer yeneen vingt pour cent yu des man ma jël ko te 6 6 pour cent yooyu président daf nañu dañu fexe. ba nga xam ne ñu nga xam ne ñoo gën a néew doole bu leen réajustement tarifaire bi laal te loolu buñ ko xaymaa toll na si juróom-benni junne juróom-benni téeméeri junné ak ñaar fukk famille yoo xam ne hausse bi du leen laal ñu xoolaat mu am ñetti téeméeri junné yu nga xamante ne nii hausse bi Temer bo jël yegul ñett luñ leen si yokal donc loolu buñ ko xoolee bu ñu jëlee client yu nga xamante ne nii ñooy client domestique yëpp téeméer jël si ñoom presque juróom-ñeen fukk yi affaire bi laalu leen